gàmmu gi déwénati ndénkaane ki bàttale dox ci diggante kilifa diini yeeg ñooñ aada yi taxit nag mboole seen yéenekaay xëy di ñu ko dégtal doore ko ko Sud Quotidien ca Tiwaawoon la tàmbale ak kàdduy sang bu tedd ba foofe doon xalif général Serigne Baye Sy Mansour am na lu ko métti lool ci tolluwaayu kër réew mi jëm ci askan wi nañuy doxale wàcc seen nopp ànd daanaka sax seen nekkee ni ko dundin lu ñu mën a gam-gam leggook bàyyi ma la ne lu neex waaye def baa nga wax ko te doo ci sóoraale lenn amal ci wàllug internet bi sàng bu tedd bi ne warees na ko moytandiku nag ne Sénégal xamee wuñu ko ak ñaawteef ca Tiwaawoon ba tey yéen i gi di Sud Quotidien ak palais de la République foofee cote la Moussa ci diini teg seen gët jamono ji taxit nag lu jëm ci jogante tànneefu njiit mi ci atum wax nañ ci seen ñett dëgg na ki démb ak yoon ki pexe yi ñuy fas yéene sukkandiku ngir seen mébét googale en tout bu ñu bàyyi ko Tiwaawoon ñi dawal ba Medina Baye i àdduna bi foofee nag président Macky Sall sax jot na faa jaar yi yéeni kaay gi ne Medina Baye kay président Macky Sall la ànd ak taxaw temm ngir jox ko ndam atum 2019 ànd ak di ñu dégtal kàddu xalif bi jaaree ko Cheikh Mouhamadoul Mahi sey Aliou Cissé mi nga xamante ni moo yorop baatam di kajeka bàkk njiit bi mi Macky ngir wegeel ga mu am ca Medina Baye firndeel na ko rek ba mu foloo ko léegi saa su nekk ma ngi fay baagante di leen baaxee ndimbalam taxit loole rek ñoom doy na ci seen i gët ngir Medina Baye feddalante lu safaanoo lool ak waa ax lu yi nekk ci diwaanu Ndar Géej foofule moom xalif ba di Cheikh Adramé la ñu enquête yi ni kaay ni mer na ba fotu ni leen nguur gi seetaane ci seen xew-xew dina bu mag bi ñu doon amal yi ni kaay gi ne sang bu tedd ba foofe Cheikh Adramé nag la mu jàpp mooy nguur gi amut ak wegeel jëmale ci ñoom at mu jot duñ leen baaxee lu dul ñaari tonn yi ceeb te sax balañ caa jot dañuy am ay jafe-jafe ak ni ñu toll ci milim réew di Sénégal waroon nañ leen a delloo seen gëdd ak war ma gi ñu yeyoo musiba ga fa am bàyyi ko ci géej gi ñu ne dafa yëngu ba def fa ay loraange yu jéggi dayo bokk na ji mëdd ay dëkkuwaay ba seeni borom dañoo fànqoy ngir am fu ñu mucc muccilee seen nëpp bakkan yéeni kaay gi ne yëngutu géej gi bakkan desu ci waaye naka am na ay loraange sëgi càkk njaay ak ay dëkkuwaay yu sakkan ci géej ndar ba goxu mbaaj foofee yépp askan wi sa ngéem lañu def ne ñàkk nañu seeni kër ànd ak tamit ñetti nit yu am ay gaañu gaañu bokk ci gennu njaboot mbiru boppam di ñu toppandil ay dambaake mi ñu ne moo soode woon borom këram ba mu jaaree fa ñibbi barzaq yéen kaay gi ne moom soxna soosale nag xel ma daa dem fi mu toll ni lay mënul wax baa mu def lu nit mën a dégg ànd ak it nag di leeral ne ñi sàll wàllu ko lanket bi jot nañ caa déglu ab doctoram ba loolee la daal di dëggal sunu làmb yéen kaay Abdou Guèye moo cee xëy di àddu taxit yéen gi fésal ne waa joojee nag lépp lu waa CNG gasoon toppaat na ca daal di koy suul ginnaaw ba mu jàngatee ni ñu tëggaatee am na ay njuumte yu mat sëkk ne kii di mbay Guèye amut fa place ngir ay atam Tyson yëkk Yékini dañoo war waa axlu làmb Matar Ba jawdi ji dénk wàllu ko tàggat yaram la mu def weesuwul ak njuumte